le président Ousmane Sonko libérer Bassirou Diomaye Faye mais saluer seen libération en tant que sénégalaise en tant que jullit di ne que amoon nañu seen place ci compétition bi wante dafa am lu ma jaaxal dama commencé ànd ak damay wax dëgg rek dama commencé jaaxle ndaxte nag buñ nee suñu monnaie bi le franc CFA dinañ ko jékki-jékki rek tëb rek soppi ko maa ngi naan ah Bassirou Diomaye Faye li ngay wax nii faaw nga uti xam-xam ba kenn du tëb di jël exemple ne da ngay jékki-jékki di dindi CFA pour fi créer une nouvelle monnaie de cette façon là ça ne se fait pas comme ça moo tax dañ ne lan ndànk ndànk ndànk mooy jàpp golo ca ñaay ba am na loo xamante ne boo koy wax ay engagement surtout dans une campagne présidentielle na la wóor ne yaa ngi jël ay promesses yoo mën a respecté ak Ousmane mooy moi je suis perdu Ousmane mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Diomaye mooy Ousmane mais qui est Ousmane finalement mais qui est Sonko finalement mais qui est finalement Diourbé xam ngeen yéen lu wóor ba wóor